lu toll ni ci cancer du sein ak loraange yi indi yëpp Sénégal gis ne tamit ginnaaw cancer du sein cancer bu bëtu jurukaay ay loraange am solo lay indi mu ko ci bés bi ba tey jii journée bi ku ko wax wax cancer du sein cancer du col de l'utérus gis nañu taxawaay bi am solo bi ngeen fi def dépistage yi nga xam ne ñoo ngi koy jagal askan bi ñun au nom du district sanitaire de Khombole li ñuy def rek mooy kontaan ci parce que lépp lu nit def ci wàllum wér-gu-yaram ñun ko ko defal parce que ñun la fi yàlla teg pour ñu yaram donc Sénégal tey jii santé dafa bokk ci ay priorité ba tax na képp koo xam ne dugal na ci loxoom mën ñoo def lu di ko jaajëfal di ko encouragé ci élan boobu moo def muy élan boobu yemul tey parce que c'est vrai que tey jii la soo soog a gisee yaakaar na mais dégg nañ action actions également en matière de santé et donc vous lay encourager par rapport à cette vision que vous avez pour la santé au Sénégal. Ces journées mon mon du cancer du sein et du col de l'utérus vous l'avez accompagné par des journées de consultation et gynéco yaa dermatologue te yooyu yëpp mu nekk ay prestations de service yoo xam ne dans nos consultations d'origine amuñu ko fi donc buñ ko fi indee tey jii déglu leen ko askanu Khombole ñu mën a def loolu ci kontaan parce que jàppale ngeen leen ci seen wér gu yaram te ñu war a déplacé wu dem ba Thiès pour mën a gis yéene ko wala gis kàddu yaakaar naa ne dañuy sekk ay ñaari ñetti jéego ñu gis leen xool leen te loolu tamit jëriñ la pour askan bi di leen di sant si ñaari Et remercier également l'engagement des associations des sages-femmes, à cette activité, Madame Lindoski. Euh, commencé nañ ko liggéeyam depuis octobre euh, yaakaar naa ni mooy sixième sortie bu ciy def mais taxawul benn yoon chaque jour ñoom ñu taxaw ànd ak bàjjenu gox bi ànd ak ay infirmier pour que vraiment jàppale district bi parce que bu ñu waxee district bi commune Khombole la ak yeneen commune yi ko wër yëpp pour que ku nekk fooy yeewoo yow sa profité ci bés bi mën a seet sa yaram ci wàllum li ñuy wax cancer du sein Il a dû encourager encore pour ces élans de solidarité Je bii du yem fii parce que dépistage tey journée bii journée communication là. mais la consultation est une question de routine donc on va continuer à agir dans ce sens pour permettre à la population à chaque fois qu'ils auront besoin de santé bu ñu tourner mën tuuti mais képp a ci de ñu koy sant ci de la donc ñu de sant